xamante ne nii suba teelu Rich mon djizz moo ko dàq fii ci Sénégal di leen nuyu yéen yi nga xamante ne yéen a ànd ak ñun di ñu seetaan ci seen émission Rich mon djizz ci suba gi di nuyu ñi nga xamante ne ñoo génn senegal di ay doomu Sénégal ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen nuyu borom tax bi dama bàyyi xel bala mu maa mbëkk léegi nag fi mu nekk nii fii nii ma nekk mooy mooy gël Tapée maa ngi fii gël Tapée ci marché mercredi bi maanaam marché àllarba bi après àllarba am na alxames xaw ma alxames nag fu ba nekk ma dem fa léegi nag fi mu nekk nii euh, ñu ngi nuyu ki nga xamante ne mooy Quoi de Neuf Croix de Neuf boutique lii la ti ci été bi fi mu nekk Croix de Neuf nee hiver dafa am après hiver am te après hiver ku ci nekk xam nga ne ete la ba tax na moom Croix de Neuf ku ko seet ci été bi doo mer am na couleur boo bëgg ba tax na fi mu nekk Croix de Neuf boutique Fatou Kiné Ndour été bi moo koy daggate foo solo fudul foofu yàq nga ko ndax xale bi ay bagage am macha allah ay produits yu dul périmé lay jaay ba tax na ajaratu fat lay kenn yi tamit ñu ngi koy nuyu greffage bi moom la di ko nuyu di nuyu Oumy di nuyu Khady Ndoye Rismon Jiz ak euh, euh, Diarra Bousso ak Mouhamed borom Matika xaritu baaraam bii wala xool leen kii borom soutien yaa ngi nii yow na nga def. maa ana say soutien. samay soutien yaa ngi nii. <laughs> foo takk yi. samay ween. <laughs> yaa ngi ci biir émission Rismon nuyu naa la ci di la ñaan ban clip ban clip ngay ñaan. man a jàkkaarloog marché bi waaw. man maa ngi ñaan clip ban say. man rab laa rapport laa de. waaw rab nga. Ah. mais yaa ngi daanu rek. man waaw maa ngi daanu rab bu baax. lu lay yëkkati boo daanoo rab. man jili bax dara rek. Ah. jili jili waaw jili moo woy lan. yàgg bawul dara. kon yàgg bawul dara yow koo koy may. man maa ngi koy may sama xarit bi baara. waaw xoolal nii nag. Ah, man dama ñëwul caméra de. <laughs> lii du caméra ay bant rek. ay bant la ak ni ñi nii di ma xool nii xam nga loolu la waaw maa ngi may gars yi xool nii. am nga non mi ñoon soli xaw ma ko. am am nga soxna. non. yaa ngi labat waaye. waaw am naa gel quoi. Ah. am nga lan. am naa gel. am nga. gel dana takk soutien. <laughs> waaw day takk soutien moom. lay takk fii. moom moo rose. moom moom rose lay takk mais xam naa fi rose amu fi quoi. bii bii bii bii lay takk bii bii bii bii. Ah, bii mbaqe de. non bii bu mag la mais ma sama gel ba après bu ma koy xam naa ne ma nga yi ngay wutal waaw fi mu nekk nii nee na yàgg bawul dara lay maye eh, ku ko way jiili bax daat waaw jiili bax daat kon yow fi mu nekk nii yàgg bawul dara bi mën naa génn jiili doxantul jox ñu yàgg bawul dara bi euh, fi mu nekk kon bisaan ñu ngi ci biir marché bi ànd xale yi nga xam ne dañoo ris moon jiis fi mu nekk nii ñu xool keneen ci biir jiili tonton siyaar naa la waaw ñoo ngi lay béggee soxna si mais tonton est-ce que seetaan TFM TFM TFM waaw saa ma seetaan ko nag. Ah. waaw mi ngi neex. waaw TFM moom dina neex moom rajo. kan ngay kan nuyu ci émission bu bees bi kan man ah ñëpp laay nuyu sama mbokku sénégalais yi ak ñi nga xamante ne ay Baye Fall lañ bëgg maam Cheikh ñoom ñëpp maa leen di ziar di leen nuyu. ñu ñëw si marché bi di bégal gaay yi. lan ngay ñaanal Sénégal. Sénégal ah jëm kanam rek. Ah. ñëpp yàgg fi jàmm ak salaam. Ah. waaw ñoom laa leen di ñaanal. amoo loo ma baddil ah. ah waaw waaw la rek taw feex su ma maajaalee xam naa su ma jaaratee rek defal la xéwal. mais baddil ma dara ma may la jili Baxdaad. amul amul amul solo fi ñu toll nii il faut que ma baddil la lenn. mais pound sax bañu ko pound weñ weñ. Ah, waaw moom la rek moom la rek ba tey moom la rek ba tey moom la rek ba tey man yaa ma war a jox daanaka xam nga man damay maajaal ah. yow yaa ma war a jox. man kon xaar ma xaar ma fële ci fond. waaw sans problème. jaajëfatee waaw ba tax moom tamit bay Fall boobu ñu ngi koy siyaar bu wér a wér a wér di siyaar kulli Baye Fall ak kulli Baye ñëw kon bàyyi wuñ leen jox nañ leen ji li baax daat bi euh, yàgg bawut dara kon ñu ngi seen biir émission Rich Mon Djizz nekk nii nag yéen a ngi ci seen kii man nag damay publicité ñëpp léegi ñëpp dinañ ñëw bu soobee ñoom noo tudd noo tudd. Soda Samb Soda Sall ban kër ngay ñaan. man kana Viviane. Viviane ñëpp waa marché bi yëpp ak suñu waa koñ waa Caaroy. ak kanaat bàyyiwuma kenn ah. ak samay. <laughs> na nga def. sant nga koy lootee bil gël tàppe. fii la liggéey tey waaw. noo xanaa da ngaa problème nga am añoo. jàmm rek. wala jaraloo. jàmm rek sant yàlla rek waaw. kan ngay nuyu ci biir émission Rich-mon Djizz. ñëpp rek. akan ah, bépp rek. Ah. buy daan doole rek. buy daan waaw bàyyiwoo kenn. bàyyiwoo kenn. yaay bàyyi doon borom biliyan ku ci mën a am diis na la nartaan kii kàkkale sant yàlla yéen ñëpp noo tudd. Asou. Asou foo dëkk. man. Ah. fii Dakar wala dëkk. koy nuyu si Viviane bi Dakar laa wax ma dëkk àll dëkk àll man fa laa dëkk. koy nuyu si Viviane bi. ñoom waa dëkk ba. ak sama yaay ak sama papa. waaw. doo nuyu sa poupée bi. ak gërëfaas bi. doo nuyu ki ngay liggéey. ak sama patron. léegi viens eh mignonne jolie viens ah, deux minutes viens ça va. ça va bien. tu parles wolof. bien sûr. mais comme tuba comme tubaab toi Viviane bi koo ciy nuyu nuyu sa tal boobu. Hmm, maa ngi koy nuyu sama yaay ak sama papa. ak sunu waa kër gi yëpp ak waa université yëpp. a ah, kan. ah noo tudd noo kan Aram. yaa ngi seetaan émission bi. Risman waaw waaw. ngi toj mi ngi toj. moo koy waaw kon Aram ñaan euh, Viviane bi may nañ ko kaay. koo nuyu si Viviane sama yaay. ak ak sama papa. ak kan. ak sama rak. ak kan. sama tante Awa lii ka saw. lii ka saw foo dëkk. nii Saint-Louis. saint laa dak fii. saint waaw ñu ngi nuyu waa sans loi yëpp nee na sans loi la dëkk kon def lu la neex la dëkk kon ñu def lu la neex sans loi kon jox nañ ko sans loi ñu jàll ci beneen clip xool keneen kan lañ ciy bégal ci biir émission Rismon Djizz nee naa leen ñun dara ñu lu dul di leen bégal moo tax dañuy wax ba suñu baat yi dee après ñu xool na la ñuy négocier naan meew. ba salaamaaleykum. waaleykum salaam ça va bien. yow yaay kan. El Hadj Lo tal boobu tournel tuuti waa ñu wax. mais mais mais xoolal ban clip ngay ñaan. Euh, Pape Diouf. Pape Diouf bi koo koy may. sama jabar yaa ak euh, Oumy Lo sama doom. ak kan suma yaay. yow nga mës a rafetee. <laughs> non bàyyi la nga dafa wàññeeku. dafa wàññeeku. ah <laughs> nga mës a taa nga def. sant yàlla. dendandoo bi loo ci wax. ah man dama cee xaw a tiit damay bañ sa yumpaañ sa tante de. waaye yow. yow kay bu dal li eh, eh, su ma leeree ni bàyyi ma itam man xëy na ma. bàyyi na ma père jaay place bi quoi na ma jaay non lu ma jaay du ma waxaale. après may moom mooy Yves Niang bi dégg nga man boobu may daaneel nag di ko may sama mooy chéri boy dégg day màgget dégg nga waaw. papa. waaw bébé. papa. bébé. papa. bébé. yaa ngi ñàkk de. may nu may def yaa man. doroge xale bi dafa yaa ma doroge doom yaa ma bi nuyu ci ku waaw man de waaw nuyu naa ci samay gone yi ndaw ndawaan xale yi tuuti yaag tuuti tuutaan yi ñoom ñëpp rek paa yi nag ñoo toj dëkk bi ñii ñoo xoromu ñii ñoo baax mën a waxtaan ak seen doom yi da ngay dem sama loxo bi oui ma Yves Niang Baye Laye bi grand dégg nga voilà may ma ko dégg nga en may nday Maguette Mbow dégg nga sama cappali waaw dégg nga Yves Niang Baye Laye man xam nga lu ma yàlla na nga am jàmm 10 ans man ma soog am jàmm non nga am wuy ma yàlla na nga am 10 ans jàmm man ma soog am jàmm man soo naree ñàkk jàmm ko yow yàlla na nga ko ne si jàmm réema fils réema <laughs> ba day wuy ma di ko moyel waa Guèye waaye nag Balla waa grand na nga def fi noo tudd man Aliou Aliou Yves Niang bi ma may ñaata semis nga ciy nuyu ki semis ak benn rek ak yow ak samay xarit samay mbokk semis yi sa ñaata la 500 rek téeméer téeméer. lan nga wax ñi ñi am jëkkër bàyyi seen jëkkër yi liggéey ñuy génn di doxantu si mbedd. ah loolu de baaxut déedéet waaw. waaw ba tax ñu ngi ci émission Rich-mon Djizz ñu leen di wax ba tey euh, koo xamante ne nii da ngaa am sa talboo mu def farata sunna si yàlla ak Muhammad da ngay toog sa biir kër sa jëkkër bu demee wala boo bëggee génn di ko tàggu ba tax na kër gi ma jaakaar loolu daa am ku fi dëkk koo xamante ne nii jëkkër ji dafa dem liggéeyi mu génn sëy ba tas kon fi mu nekk nii loolu mooy thème bi tey ñu waxtaanee lii.